mbokki Sénégal mbokki réew mi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 76 844 43 44 wala ci 76 844 43 44 ma ne mbokk yi xippi leen seen i bët te tàggoo ki nax ko mën laa ki koy jéem te ki ne fàng daa ne maa ngi ni nëbbatul ay mbiram saraax la def ci xew-xewu làmb tey fekk journal ba indil ñu ab jàngat bu yaatu ci saison bii ñu génn saison bu corona la journal bi xamle saison bu ñu tàmbali yeggut moom la gis ci bile journal saison boo xam ne corona bi jël na wàllam weeru koor bi jël wàllam saison ba jeex taat ci saison boobee ñu génn nag le journal ba xamle mooy cinq mois toog nañu ko bëreewunu a bëri bile lamb daal covid bee fii roi des arènes mooy def lu ko neex fu ko neex lay jaarale lamb ji mooy tëjëkka tijji te kenn xamul kañ la koy tijjiwaat ca mois de mars la ko ne ràppte refi bëre ñu doon dunde yaakaar weeru koor bi dugg ci avril ak mai ñu jóge ca ku nekk di xalaat saison bu tijji corona bi ne ràpp bunt bi taw bi saison 2019 bi moom corona bi da koo yàq ba mu neexet 2020 moo fi desete lu journal ba xamle mooy juróomi weer képp moo ci 2019 2020 sax am ci 2020 feebar daal ax lu làmb mere nan ko ba fa mere yem ka mer ba futt tey wane ci journal sunu làmb mooy Père Omès zappe ga ko ministre Matar Ba zappe ci consultation yi mu doon amal wane na am naqaram ci sunu làmb moom la mu xamle mooy personne ne peut faire la lutte sans moi amul kenn ku mën a wax làmb ci réew mi te tuddoo ma ci ku ma génne ci làmb réew mi da def lu la neex on m'a kenn fàttalikuwuma loolee mooy ay journal ba xamle mooy mu ngi tegale troisième année blanche am te li ko waral du leen lu dul mbas mi gannaaw saison 2018 2019 mu teg ci 2019 2020 bëreewul 2020 2021 moo ci waaje topp ndax juróomi weer képp a ci des li ni mel ku jàpp ne méttiwul da ngaa bokkut ak président de l' association des lutteurs en activité moom Gris Bordeaux xam na mel ku jàpp ne méttiwul rek bokkut ak moom yëg-yëg Mame Balla numéro 1 moom la mu xam na ne maa ko ëpp doole nuus jàpp ko moo tee làmb ji jeex te bu arbitre sifflé danaa ko yoot ba jàpp ko jeexal làmb ji moom Mame bu Pikine lu muy jaay bu yeboo xam ne maa ko ëppale foofu samay supporter dama bëgg seen xel dal te xam ne Mame Balla matu moom nga bu ñu jàllee ca écurie Parcelles mbooloo la journal ba xam ne mooy bëri nañ espoir yoo xam ne nii yaakaar nañu ci ñoom ngir ñu téye ji làmb ji ku wax espoir u mbooloo faaw nga wax ñett ñi Elton Junior li gën a fas ci yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba allah